waye yene ci itam jariñ ko ndax xajna boko liggey ko kenen liggey wuko bu soxla lal du ko am bu ko soxla du ko am ndax bu ñepp togon fa ci seen loxo ñepp at ministre yep ne bàyyi nañ liggey lal bu soobee yalla dana bari keur yu du am lal jafé jafé dana am niki non it ñi liggey ci walu tabax bu ñepp ma woon fa ci seen loxo ne atum lem ben birik duñ ko ak morom ja jafe-jafe dana am moo tax société bi ni ko yàlla bind mooy dañoo soxlante kenn ku nekk da ngaa soxla sa morom kenn ku nekk kuñ soxlawut amut ku kenn soxlawut fenn amut kenn ku nekk rek am na fu la sa morom soxla yow am na foo ko soxlaa léegi nag da nga yéene ca la ngay wut ba nga koy xamlu yéene ca jariñ ca mbindeef boo ko xamee boo ko amee loolu boobaa tuyaa ba ju réeréeréeré lay doon sa digg ak sa borom mu ne ñetteel bi mooy nga yéene ci nga yéene ci jariñ mbindeef yi bokk na ci métier yi ci gën a taxaw te mat cee fàttaliku yooyu ma tudd waaye bokk na ci lu mel ne ñu yor lu jëm ci wàllu wér gu ñu yor lu jëm ci wàllu wér gu lépp lu jëm ci wér gu rek ak xeeti xeeti anami wér-gu-yaram yi ñu jàng yëpp rek xeeti anami paj yëpp nag laa wax métier la moo xam ne ak i xam-xam yoo xam ne nit mën na caa dajale ci tuyaaba ku lu kenn xamu num toll lu kenn xamu num ndax doomu aadama wér-gu-yaramam moom faaw day am leneen lu nekk doog di mën a am borom xam sax dañuy wax ne wér-gu-yaram la ñu jiital ci wérug diine ndax nit faw mu wér doog a mën a taxawee diineem ku wérut mënut taxawé diinam mënut a nekk mënut a ku wérut mënut a taxawee diineem faw wér am nga do ko mëna taxawé taxawee li la bëgg ci yow nga diko def ci suuf nga do ko mëna sabab lu sakam kem kon motax ña cay yëngu war nañu bayyi xel ne ña ca tollu ci di jang war nañu def ci seen ak seen yéné mu doon lo xam buñ ca noppé dañuy jariñ ndé fi sun borom yi dañ leen ci jariñ ta fexé nak ba gor lu ba buñ ca noppee ba dem ba toog ca barab yañ koy liggéey it yéene joojee ñu bañ a tàggoog moom daa matoon sax képp kuy faj rek bind baat bu mel nii def ko ci sa barab bu fajukaay saa yoo toogee jàkkaarloog moom sa xel di ci dem sa di ci dem ndax li ñuy gis nii léegi daa wuuteeg doxin wii li ñuy gis léegi mooy da ngay dem ca jàngukaay ba jàng xam-xam sàngam ci xam-xami faj yi nangami at sonn ca coono bu ne jóge fa lijjanti concours ak lu na nga dugg ca ngir am liggéey coono bu ne nga daj ko ci fune nga jàmbat ko fa ba ñëpp jàpp na boo amee liggéey da nga ko téye na ko war a téye nga am ko di ko fooye na koy fooye mooy fooye nit ñi fooye gi nit ñi mooy fooye gi ndax fooye nit ñi weesu wut nga doon koo xam ne yow yaay médecin chef ci district bi hôpital bi wala district bi wala nangam yaa fa taxaw taxawaayu nangam wala yaa yor service sangam di yor lu jëm ci paj mi jëm ci domaine sangam waxtu nga war a xëy si doog xëy si huit nga war a xëy balaa ngaa dugg ci hôpital bi onze heures jot wala dix heures jot loolu ay caaxaan la sëñ bi na la wóor ne trois heures de temps ya nga jiital. normalement saa yu sa salaire ñëwee danga ko waroon dagg delloo ko ndax lekk nga lu lewut ndax li lay fay dañ koo natt ci heure yi nga war a liggéey heure yi nga war a liggéey da war a liggéey huit ba midi wala huit ba trois heures wala huit ba six heures wala huit ba nangam loola boo ko boo ko téewut ba noppi ëllëg nga fayoo ko sa salaire bu mat sëkk dem lekk yaa ngi lekk loo xamut loolu lu xam la. ci liggéey yëpp sax rek la loolu moom ci liggéey yëpp la yëpp yëpp la anamoog nag kon li ñuy gis far yaa ngi fii ci hôpital bii fi lañ la teg di la fay sa salaire ak nu mu mën a toll ak parce que nu mën a toll dëgg la li ñuy faral di jàmbat salaire yi néew na nangam nangam yaayoo nañ lu ko ëpp loolu dëgg la ndax kuy faj kuy faj moom mënees koo fay lu lu lu lu lu àqa mënees koo faj mënees koo fay ndax li muy def ci nit lu ko mën a wutu daa amut ñiy faj li ñuy def ci nit lu ko mën a wuutu amut moo tax luñ mën a sonn ci ñoom doyut nguur gi war naa def yitte ci loolu ci sonn ci ñoom bu baax bañu nekk ci condition yoo xam ne dana leen may ñu war a taxawee ni ñu war a taxawee waaye ñoom it loolu du lay ci tax nga nekk ci hôpital bi wala district bi nga xam ne fii lañ la indi nga fi fayee ko weer ngir liggéey nangam ba noppi ci koñ bi rek wala ca barab sangam nga ubbi fa sa sa clinique gu heure yi nga wara def fi nga di dag leg-leg di dem di tok fofa wala euh, patient yi ñew leg leg nga nga nga bindal nit aw keuyit jox ko rendez-vous fofa lolu lolu daganut loolu daganut ndax yaangi ngi wor yaangi wor mi ci miñ lay liggey do ngi wor lolu jaaduwut lu mata xel la yaangi wor li ngay def daganut lépp loo ci jëlee ci alal ab dërëm ba ca milliard ak lu ko ëpp dara baaxu ci te nag ab jullit war naa moytu di dugal ci biiram lu daganut lu mat moytu la waaye itam xeetu anamuk fooye nit ñi itam ci nit ñi traité nit ñi ci hôpitaux yi loolu itam bokku ci ku bëgg a jariñ nit ñi muy sa yéene di sa yitte la jiitu xam nga ne ci mpaj mooy bellil sa kanam ci nit ñi ubbi leen sa kanam yaatal leen dalal leen ndax xam nañ ne doomu aadama yëg-yëg yi mu yëg ci yaramam ak njaaxle gi mu jaaxle tiitaange ji stress boobu mu ci jànkonteel bari na sax lu mu yokk ci wér dem boo fexee ba dindi ko rek tàmbale koo faj fi ne ko tàmbale nga faj boo fexee ba dindi ko mu ñëw nga wooye falal ko lépp jëflante moom jëflante bu rafet am ci moom yëg ku yitte fi ne dem na ba yegg ci ci ni ñuy jëfee ak gaaw gu ëpp gi ak ñàkk gi mas namaa dem ci benn barabu fajukaay ka fay faj doon ku jàmbaare te nangoo joxe yitte nit nga xam ne ku dugg moom man nga fay am 40 minutes wala lu ko ëpp ndax day jël temps am ci yow ba la war a def lépp mu def ko rek nga doog a génn keneen doog a ñëw du yàkkam si dara ma daje fa ak benn kilifa goo xam ne dafa ñëw ku ma xam la booba la fay doog a ñëw ñu toog tuuti waaye daa mujj yàkkamti bi daa mujj dem. ndax dafa jàpp ne kii loola la ko jur mooy lam miin mooy fam baaxoo dem fépp cuut cappet lay doon maanaam ku dugg juróomi minute fukk nga génn keneen dugg nga xam ne benn temps duñ ko nangoo def ci yow jenn yitte duñ ko nango def ci yow te loolu du noonu loolu kon lu mat a bàyyi xel la dégg naa ci nett li ñuy wax ne Cheikh El Hadj si Sy radiyallahu anhu daana wax ne bu ma delluwaatoon doon ndaw di jàng xam-xamu médecine moom moom laa jàng maanaam luy faj wér gu moom laa jàng ndax lu tax mu di ko wax mooy ngir xam solo sim am solo si am ak niñ ci mën a fàggoo tuyaaba yàlla ak ngërëmul yàlla mu ne ñetteel bi mooy nanga nga yéene ci xam bi ngay xam lu na ci yéene dundal xam-xam dundal xam ndax xam-xam lu fi suñ borom indi la loo xam ne daa war a dund di wéy maanaam génération bu nekk dañ ko war a wut ba am ko jëf ca liggéey ca dundal ko ba bàyyil ko fi ñuy ñëwaat ñooña mën caa jot yokk ca ñoom it lañ cay yokk bàyyilaat ko fi ñeneen muy wéy ba fa soob suñ borom dundal googu nag kon lu munta ñàkk la ndax saa yuñ tollee ci jamono ab génération yu ñëw sàggane ko wan ko gannaaw loola bokk na ci lii mën tax ba mu mujj dem ba giim wala mu dem ba dee sax far kon moo tax dundalaat xam-xam ci yéene ji la a bokk ci yitte ji la war a bokk dundal xam-xam nag day na ko defe ci anam yu bari bokk na ci la ca jiitu moom mooy ngir nga dundal xam-xam faaw nga fàgg ko ba am ko loolu moom mooy li jiitu fàgg ko ba am ko mooy li jiitu fàgg ko sonn ca nangu caa daj coono ba am ko yow boo ko amee ba noppi nag doog a seet noo koy dundale dundal ga nag bokk na ca nañ koy defee jàngale ko ci la bokk jàngale ko jàngale ci anamuk jàngalin yëpp it jàngale itam faw ñu xam ne jamono fi mu toll léegi jàngale yëmatut ci rek nga jàpp ne képp koy jàngal danga ngaa war a toog ak moom jataay ak moom waaye koo toogalul sa nekku ci moom waaye jàngale lu yaatu ci jamono jiñ toll ndax mooy yi jamono indi léegi moo toll noonu nit ñi itam niñ tasaaroo ci àdduna moo toll noonu moo tax mënees naa jëfandikoo jumtukaay yi ñu am lépp ci jamono ngir liggéeyale ko diine ci jàngale xam-xam ngir dundal ko fexe ba ràññee li ñu war a xam li ñu war a xamal nit ñi ak nit ku nekk ak niveau bam mu tolloog lañ ko war a xamale lañ ko war a jàngale ak nañ ko war a jàngale ñu taxaw ca loola def ko mu yitte. ci li dundal xam-xam ci la bokk ci liy dundal xam-xam la bokk jàngale nag léegi jafe-jafe mi ngi ciy bëgg a am ndax euh, ñu bari ci nit ñi léegi defatuñ ko yitte ñu bari ci nit ñi léegi nangootuñ ko def yitte bari na ñoo xam ne lu ne mën nañ koo nangoo def ba mu des jàngale moom jàngale moom du ci bokk léeg-léeg am na koo xam ne daa bëgg daa bëgg alal te ku bëgg alal moom danga nga weesu jàngale da ko fi weesu lii sama génn kilifa gu xorom doon wax suñu Cheikh na Abdou Wadoud ne képp ku dem moom bindu ji fenn fu ñuy jàngale mooy doyal naa xaalis mooy doyal naa ndax ci suñ réew yii moom ab jàngalekat du am xaalis noonu la baaxoo ab jàngalekat moom doom xaalis waaye nag yooyu moom nit ki mooy seet rek luy yitteem ak luy jubloom ci àdduna am na koo xam ne àddunaam objectif am ci àdduna mooy am alal manees na ko bàyyi mu dem defi loola waaye yow yaay xool lan mooy sa jubluwaay ci sëg dund loo ci bëgg a réaliser yow yaa koy xool bu dee na xam nga ne da bëgg a réaliser ci sëg dund liggéeyal xam-xam ak dundal ko ak taxawu diine boobaa mën ngaa dem jàngale ji bu dee ne sarti jàngale daje na ci yow sarti jàngale nag dara jiituwu ci nekk ko sëriñ bi waxee am xam-xam bu wér bu dee ci diine na doon xam-xam bu wér bu tege ci alxuraan ak sunna ba noppi benn ñaarel ba na nga am itam xel mu mu leung mu mat seuk xel mu ñor mo xamne dana la may nga mana gam-gam le mbir yi mën xam lu nek ak lam yello xam ku nekkit ak lam yello ndax jangal dafa xawa compliqué man nga jangal ñaari nit benn masala ta do do te boo dee jàngale ka dëgg do bokk nooyu ko jàngale boo jàngale jàngalekat dëgg man ngaa jàngal ñaari nit ñu bokkut benn masala te doo bokk ne ko jàngale ndax ku ne da ngay fexe ba booy tàmbali di ko jàngal rek ci ngay jéem a fexe ba xam kii ban xeetu nit la ak kan la ba boo koy jàngal nga xam ni nga koy jàngale loolu ci mën a jàngale la bokk lu munta ñàkk la waaye di jàngal ñëpp ci benn anam loolu moom bokk na ci liy firndeel ñàkk ko man ci loolu lay firndeel ñàkk ko man niki noonu itam mu teg ci ne sëriñ bi wax ne bokk na ci it am làmmiñ wu leer moo mën a leerale li nga bëgg a leeral ndax it li nga xam moom mu nekk ci yow boo amul làmmiñ wu leer moo ko mën a faram-fàccee ba mu leer naññ ci boppi nit ñi du sotti ndax li nga bëgg génn du génn pour yegg ci ko war a yegg kon faaw nga am làmmiñ wu leer moo ko woo ko mën a sottale ba mu génn ba dugg ci nit ki ko bëgg a dugal waaye it am na koo xam ne daa jàpp ne moom jàngale ji moom dof ko moom daa ëpp jàngale am na koo xam ne loolu jàpp daa jàpp ne moom dayoo bi mu am ëpp na jàngale moom loolu am na ci aw nit ñoo xam ne xalaatuñ ko ci seen dund dañ koy wax sax xalaatuma nekk fii di jàngale ko def nangam ak nangam damay tardé na nag loolu moom fa mu gën a doye war mooy bu dee da ngaa doon nit ko ñu tuddee nitub diine boobaam mooy yow xamoo sa bopp <laughs> xamoo sa bopp loolu firi xamoo sa bop ndax yow dara ju jo meuna am ci aduna bo xamé sa bop xam yow li mo la ko may mo la ko may diiné mo la may dara ji nga am bu doon nag diine diiné ngi ñëpp a yem loolu dafa ma xam waaye leg nit day mekk ci mbir mbir ma wër ko wër wër wet gune. ba mujj jaxase bopam ba dootu xam liko may limam dootu xam te kep ku ñu tudde dayoog cër boo mën a am diine la ko may bu doonte nag diine doo ko am ndax ña nga bokkul diine joo gëm cër bii la ñi nga bokkal diine joo gëm jox duñ la ko jox moom duñ la ko jox mën nañ laa jox cër nag ngir sédd ne diine ja nga bokk am na cër buñ la jox ñu jox la cër bi ngir worma waaye bii la ñii jox moom ak fañ ca toll ci yow ñoom duñ fa toll ci yow ndax bokkuñ loo leen gëm ak yow ña dara ñorut ci wàllu googu waxi nopp moom ndax mën nañoo jàpp ne la nga nekk sa ay caaxaan la waaye bu loolu lépp jàllee sax it nit ki moo war a xam boppam rek xam boo faloo daal da ngaa war a xam li la fal lu mu waaye saa yoo xamee ne falu nga te xamoo li la fal boo moytuwut folle ko dana ñëw te doo yëg ni mi ñëw moo tax ku ñu tuddee ab sëriñ wala ñu tug diine ku mën a doon bu ko yàlla tawféexalee mu mën a jàngale sarti jàngale daje ci moom sarti jàngale yooyu sëriñ bi tuddoon léegi daje ci moom war naa bañ a jàpp mukk ne moom daa war a ëpp jàngale waaw loolu moom waru ko jàpp mukk nettali woon nañ fii ci fan yi weesu rek lu yàggut sëñ Tuubaa radiyallahu anhu dundam gépp ni mu ko jàngalee ba leeraloon it ñii faral di siiwal naan sëriñ bi ba wootee daa tas daara ja daa def nangam leeraloon nañ la ca wér lépp waxoon nañ ko ba mu leer waxoon nañu itam nim doon jàngale dundam gépp wax jamono ju nekkit ñuñ xam ñoo xam ne xam nañ ne jàng nañ ay téere yoo xam ne sëñ bi leen ko jàngalal boppam ci la ñu boppam boolewu leen na kenn donte ne yoroon na yeneen i jàngalekat yum sampoon di leen jàngal loo waaye téewul mu daan jàngalal boppam itam di ko ci boole kon dolli ci itam keneen ku mu mën a doon ak foo mën a ne xanaa waroo ëppale sa bopp mukk métier moo xam ne yonente bi alayhi salatu salaam nee mooy sam métier yonente bi alayhi salatu salaam nee na lii tax ñu yónni ma jàngale moo tax ñu yónni ma kon waroo ko xe ëppale sa bopp waroo ko ëppale sa bopp sëñ Tuuba radiallahu anhu dañuy nettali sax ne daanay wax ne man day gimiñ daf ma jàpp am ci mag ñu ne ko ah yow kee mbàkki gimiñ gimiñ du la du la jege fenn mu ne ah ndax li doon sama yéene mooy dëkk Touba di jàngaleel sama bopp alquran te lii ma dal dal na ma ba maa ngi nii mënuma ko loolu di wane yitte ju kawe ak pas-pas ndax bam ko bam koy wax fekk na booba sëñ daam Abdourahman loo nga fële yor daara ja ci daarul alimul xabiir ay mbooloo yu dul jeex di fa mokkale alquran ak di ko fa jàng ay góor ak jigéen nag ñu dul jeex waxtu ne ñeneen a nga faneen ci yeneen i gox. ca nga boog faneen ak faneen ak ca njaareem googee yor ay daara di jàngale alxuraan ci ndigalu Sëriñ Tuubaa ay mbooloo yu dul jeex di ca génn di di mokkal alxuraan waxtu nekk waaye ànd ak loolu lépp te loolu lépp jëmmam jee tax ñu di ko def waaye loolu lépp teewut muy bëgg moom ci jëmmam itam def participation boppam boo xam ne jëmmi boppam ji moo koy def loolu kon lu mat a bàyyi xel la waaye bokk na ci anamuk dundal xam-xam it ndax jàngale du mbirum ñëpp nag ñëpp mënuñ ko am na koo xam ne am na xam-xam bu wër bu leer bu set boo xam ne ku ko xam-xam ko loolu wér na waaye amut làmmiñ wu leer wu mën a jàngalee amu ko loolu yàlla koy def am na koo xam ne làmmiñ wu leer ak mën a wax gu set gu mën a jàngalee na ko bëggee mënu ko amu ko loolu yàlla koy def kooka boobaa du bokk ci ñi sàkku ci moom muy jàngale ndax mën naa am ñeneen ñu ko ca wuutu li feeg rek yëggut ci ngànt loo xam ne lu munta ñàkk la mën naa bàyyi ña ko ca wuutu ñu wuutu ko ca ñàkk ko ëppale ñu ñu wuutu ko ca waaye bokk na ci niñ mën a dundale xam-xam it bind bind taalif taalif moo tax gis nga sëriñ bi lim taalif ci xam-xam kenn xamu nu kenn xamu nu mu waxoon naa ko fi téere bii ma tiim rek ñaar fukki taalif yu bokkut ak juróom-benn bu ma juumul mi ngi ci yoo xam ne yëpp suñ tubaab taalif te yenn la rek ci yim taalif ci xam-xam taalif na yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam ne gisuñ ko sax yeneen yu bari yuñ gisut ak yuñ gis te nekkut fii sax yeneen yu bari lim bind kenn xamu nu mu toll maanaam lu bind laa bëgg a wax lu weesu xaside yi ñuy jàng lim bind ci ay téere xam-xam rek ak mbindi xam-xam lu bari la loo xam ne kenn xamul nu mu toll ba léegi am na ci luñ gisagut am na euh, kon bokk na ci dundal xam-xam taalif ci ki yàlla dogal mu mën a taalif ki mën a taalif war naa bokk ci jubluwaayam mooy mu war na cee bokk te xam ne kii jàngale tuyaaba juree ji mën a am ci njàngaleem noonu itam yow muy taalif noon nga mën a amee tuyaaba juree ci sa taalif wet li ci am solo rek mooy sellal seeni yéene kii jàngale bu sellalee yéeneem lam mën a jëlee ci ba ca njàngale moom kenn xamu nu mu ndax bépp masala benn masala bu mu xamal nit ba kooko xam ko jëfe ko ci diineem lu ca waaj a jëf ba addunay tukki da ca jot wàllam kaneen ku ko kooko xamalit noonu lu muy wéy di wéy di wéy ba noonu bu doon jox misaal buñ toogee fii di jàngale téere bu Sëñ Tuubaa taalif bépp masala buñ ci wax man mii koy wax kama ko jàngal ak kak ko jàngal ba wéy ba ci sëñ mag bi ko taalifoon bindoon ko ñëpp a ci am seen wàll loolu kon tuyaaba ju rëy la joo ne kenn xamut fu mu kenn xamut fu mu toll ndax lu muy wéy rek sa tuyaaba day gën di kon ne dem taalif it noonu la mel waxoon nañ ko fan yële imam al imaamul Ghazali nga xamne bam fi joge leg leg mat junniyaat waye ba leg ay tere a ngi fi ñu diko yër ngay tok di lire ay tere ba melne Ghazali yaa ngi ci néeg bi nga dendal ta fek jóge na fi bam mat danaka lu jóge junniyaat nga doog feño yow waye loolu xam-xam ak bind mo koy maye kon bu ko defé ñaata ñoo ci jariñ ci xam-xamam bobu mutalif ci dirub junniyaat yi ba fi joge leg kenn xamu num tollu ay génération yu dul jeex ñoo ci jariñoo ci fune ci adduna te noonu lay continuer ba keroog muy sob sunu borom kon loolu moo tax it bind itam ci koo xam ne ku mën a bind la loolu itam ci li ñu dundale xam-xam la bokk mu daal di wax ne euh, ñeenteel bi mooy jëfe li nga xam mooy ñeenteelu li nga war a def yitte ak yéene te mooy booy jàng nga xam ne jàng nag du jàng rek ngir xam ngir denc ko rek waaye jàng li jariñ mooy jëfe ko loolay jariñ li nga jàng nga jéem a góorlu ba mu tuut mu bari nga di ko jéem a jëfe sa kam kattan la ca aju ci ay jaamu yàlla yoo war a def sa digg sa borom nga cay góorgóorlu la ca jiitu mooy faratay suñu boroom yi jéem koo sàmm bañ koo sàggane la ca tege mooy sunna yi yonente bi alei salatu wasalam indi ngay góorgóorlu ci sunna yi sa kem kàttan ak yuñ sopp ak yépp góorgóorlu ci sa jëflanteeg sa borom ciy teggin góorgóorlu ci sa jëflanteeg sa morom yi bindeef ciy teggin ak jëflante bu rafet góorgóorlu ci sàmm say cër ci lu yàlla yi tere góorgóorlu itam ba jéem a sawaral say cër ci góorgóorlu ci def lu yàlla def lu yàlla bëgg rafetal si yéene nag ci lépp looy def loolu yi man nga koo tënkee jëfe li nga xam jëfe li nga xam jëfe li nga xam firiwut ne da doon nit koo xam da ngay mel ne malaaka ndax loolu moom nit mun du ni mel yombut ci nit boog mu ni mel mu mel noonu yombut waaye fa nga toll ngay toll tey góorgóorlu ngir jëm ko weesu loolu rek mooy sa sa warugar góor góorgóorlul ci fi nga toll nga toll fi tey góor góorgóorlu ci di ko jéem a wees waxtu wu nekk di góor góorlu ci sa lu baax di yokk di góor góorgóorlu ci say safaan ak say rëcc-rëcc di wàññee ko loolu rek mooy sa warugar boo ko defee mooy jëfe nga li nga xam yaa ngi koy jëfe yaa ngi jëfe li nga xam waaye nag dangay ngay jéem di fexe bay roy ñala la ca a raw nga leen di roy ngir dab leen loolu rek mooy yitte ji kon ñeenti mbir yi la wax ne booy sàkku xam-xam na doon sa yitte na doon sa jublu boo ko defee mooy tax nga mën a amuk jub mooy mën a tax nga am ngërëmal sunu borom teg ci ne borom xam-xam bu mag ku ñu daan wax Cheikh Ahmed Zarruq waxoon na ñaari bayit yu am solo yoo xam ne sëriñ bi nee na képp ku ko xam te jëfee ko dana def ci yow ak tarbiya dana la tàggat dana la yar dana la teg ci yoon mooy Cheikh Zarruq dafa waxoon ne Zarruq borom xam-xam la woon euh, fa mu dëkkoon tey ci diggante Algérie ak Maroc diggante boobu lay toll ku bari woon xam-xam la bokk ci borom xam-xam ngir Imam Malik taalif ay téere ci fiq taalif ay téere ci tasawuf yu bari ku Sëriñ Tuubaa fonkoon la lool daan yër ay téereem ak di dellu ci moom ci mbindam lu bare bari am na sax ci bokki naari gànnaar yi koo xam ne sëñ Mat Lamin Jóob a ngi koy tudd ci alminaxul miskiya di wax ne sëñ bi dafa daan tooñe di ko tudde zarruq noonu la ko daan tooñe di ko di bi kaf ak moom zarruq la ko daan tudde mu wax ne zarruq kon dafa wax ne képp koo xam ne day wut xam-xam te dara du ci yitteem lu may di jéem a jonganteeg boroom xam-xam yi rek ci xam-xamam wala boog di jéem a jonganteeg boroom xam-xam yi ci xam-xamam ak di rawanteeg ñoom ak di leen wan ne fii laa toll ak faa ak di leen jéem a suufeel ak jéem a wan xam-xam bu bu bari bu mu am ak di leen wan boppam walla yéeneem doon ca am xam-xam ngir ñim raw ñii ko féete suuf ci xam-xam mu leen di wan xam-xamam di cëpp-cëpp ci seen kaw mu ne képp koo xam ne liyey sa yitte wala boog wut xam-xam ngir am daraja ci nit ñi am dayo ak daraja ci nit ñi ci xeetu daraja ak dayo bu mën a doon képp koo xam ne benn ci ñetti yi mooy sa yitte ca ba ngay wut xam-xam na la wóor ne la nga am ca xam-xam lépp sa war ngay ànd ak moom mujj yan ca la musal tey it na la wóor ne lépp loo mën a jëf ci lu baax it ci perte ko rek ngay mujj ndax sa yéene moo baaxut te yéene ci lislaam moom mooy lépp lislaam moom yéene mooy lépp li ngay def ak lu mu mën a doon la nga ca yéene kese loola suñ boroom di xool lu baax loo mën a def ci kaw suuf la nga ca rek la yàllay xool baye boo nga def lu la sob ci àdduna moom ci lu baax waaye bu yéene ji baaxut suñ borom lam la cay fay du baax ndax yéene ji lay fay waaye li ngay def lum tuut tuut tuut ta baax te yéen a ja baax suñ borom ma na la caa fay lu kawe sa njort ndax yéen a jaay tax kon loolu la sëriñ bi wax muy lu am solo loo xam ne lu wér la ku ko dégg tax jéem koo jëfe dana dana la defar ndax dana tax ba yitte yu suufee yeeg yéene yu suufee yi nit di faral di yéene ci xam-xamam yow yàlla dan la ci musal nga fexe ba sa xam-xam doo ko def mukk looy rëbbee àdduna doo ko def mukk muy looy rëbbee daraja doo ko def mukk muy looy rëbbee alal doo ko def mukk itam muy lu lay may ay daraja ki wàccuwaay ci kanam nit ñi walla doon looy suufeele ay nit wa leen gotte wala yooyu ndax yii yëpp lu am la yii mu tudd yépp lu am la ci société yëpp nag am na koo xam ne xam-xamam dara taxut lu weesu fu borom xam-xam yi ne wala kuñ ne borom xam-xam la mu jëm laa daaneel. loolu bari na jëm laa daaneel am na ñoo xam ne kuñ toogal ñu ne borom xam-xam la la ñuy njëkk a xool ci moom mooy jéem a xool point faible am fu mu toll foofu lañ koy jéem a dàkk ngir jëm ko daaneel loolu nag ku mu nekk ci yow ba nga xam ne jikko ju bon a ngi ci yow ndax nit war naa ëpp loolu la sax borom xam waaye ki xamut dara sax jéem ko laaj loo xam ne dang nga koy laaj ngir tiiñal ko wala di ko jéem a wan na ko yow xamoo ku jikko ju rafet nekk ci yow ragal yàlla nekk ci yow ko def ku ragal yàlla nekk ci yow doo ko def ndax suñ borom suturaal na jaamam ñi wormaal leen worma joo xam ne ku xam da nga cay jéem a bokk waaye doo ko jéem a xotti mukk waaye jéem a sippi dara darajey nit ak ku mën a doon wala di ko jéem a suufeel wala di ko jéem a toroxal wala yooyu loolu nit ko ak mbaax nekk ci moom du ko def mukk ni ku noonu it gis koo xam ne benn borom xam-xam bu mag dafa jóge ci am réew ñëw ci réew mi Sénégal ci benn dëkk Sénégal doon borom xam-xam bu mag a mag mag mag ci ña ko xam am am diw moo xam ne ku jàmbaare la ñu xam ko waaye lam ca def weesuwut taalif ak xasiida goo xam ne dem lijjanti baat yi arab yi gën a xóot mu dajale ko ci xasida gi jox ko nit naan ko nañ ma ko joxal seen gan googu mu xool ko ba xam ndax dana ko xam loolu mooy yéene lan loolu jan yéene lay firi maanaam yow sa yitte weesuwut kii ñuy fonk ka yëkkati nga jëm koo suufeel wala nga jëm koo wan ne ko maa ngi nii waaye xam naa lu ëpp li nga xam wala nangam ak nangam loolu yéene ju ñàkk sel rek la yéen ju ñàkk sell la yooyu nag doomu aadama dafa doye di leg léeg mën nay jeqeeku ci biiram waaye moo war a góorgóorlu ci jéem a defar boppam ba fu mu jeqi koo ci moom mu jëm koo suulaat jëm koo suulaat waaye bañ koo jéem a jëfe mukk ndax lor lay jural nit waaye du ko amal njariñ te it lu mat a waggar la ci ne suñ borom mbindeefam yi mbindeefam yi lu nekk a ngi ci am na koo xam ne képp ku ko jéem a toroxal suñ borom dan la teg gàcce goo xam ne gàcce du mag te loolu mi ngi ci biir nit ñi te mënoo koo xam moom balaa nga koo xam rek da nga caa yegg da caa yegg moo tax am xam-xam te amub yar am jikko ju rafet loolu mooy mbir mi buñ demee ca Masaalikul Jinaan Sëñ Tuubaa tudd na fa ab xissa boo xam daf koo junju mooy xissab benn dongab Cheikh Sidi Muxtaar Kunti ba xissa boobu muy wax wa xissatu xam euh, nu mu ko xeeti مريد شيخنا في جنة المريد تشهد لنا loola lam te jubloo junj mooy cheikh Mouhamadul Khalifa al Kunti ca téeréem bi mu tudd junnatul murid dunal marid daf caa nettali ne cheikh Sidi Muxtar Kunti waajuram xam nga ku bari woon xam-xam la daa bari woon daa boole woon xam-xam bu bari lool ak wilaaya gu yaatu lool ñaar yëpp la boole woon la boole woon taalif ci xeeti fànni xam-xam yu bari yu du jeex. daara ji nag doon daara ju mag a mag mag a mag a mag mu teg fee jàngalekat ak ñu ne ñuy jàngale moom it muy jàngaleel boppam nee na Cheikh Sidi am nag ca donga yu mag ya koo xam ne dafa demoon ba Cheikh Sidi Muxtaar fonk ko lool mu doon kilifa ci daara ji jàmbaare lool ci wàllu lakk arab ak xam-xam yi ci aju ba ñëpp seeral ko jàmbaaram waaye Cheikh Sidi Muxtaar ma sa taalif xasida muy liir xasida ga ba am ca baydu mi jéem a baydu mi jéem a laam-laamee di ca am lu mu cay wax benn baat sax la wenn baat bu bu ñëw ci wu mu di ci jéem a lam-laamee di ci jéem a am lu muy wax ndax sëñ bi juumut fii ak ndax li mu wax nangam ak nangam ak lii moom juumut lii daal ak li arab wax nangam ak nangam nangam wax ba wax ja yegg Cheikh Sidi Muxtaar fa mujj mooy waaja daa xëy xëy bis rek ca fan yu jege mel na koo xam ne la la nekkoon ci moom ci xam-xam lépp dañ ko effacé fatiha mokkalatu ko waxuma laa la ma xamoon dara nee na ñëw na ci daara ji fekk alluwa yi ñu fi wéer alluwa yi gone yi jànge mu yëkkati alluwa ju mu yëkkati bu xoolee li liñ ci bind sax mënu koo xam feratu ijj feratu ijj nitu yàlla dafa mat a moytu fer ijj defatu ko ndeysaan mu mujj jaaxle lool di jooy di yëkkat tàggoog sagoom ba nee na sama waajur wu jigéen waajur mu jigéen moom Cheikh Cheikh Mahmoud Khalifa nee na tinu ci Cheikh sidou Mokhtar bim ko tino digeunte bu gat lañ ca tek la nekkoon ak lepp del ci wat mooy moy liñ tudde rekki rekki rekki dana am fi ci rew mi xamess na ko ba bare waana na gone gu jànge ba ñew fekk mag ñaak ay kilifa muy cëpp cëpp ci seen kaw dañ jek jek rek ay mag rekki ko loolu daana am ba te dafa mat a xam ne ni mu daan amee ba tey noonu la mën a amee ba tay waaw ndax la ko daan def muy cërub yàlla wala xam-xam lu ci nekk mi ngi fi am ba tey moo tax li baax mooy nit ki tal boppam tey lu ko yàlla mën a may ci xam-xam it mu bañ koo gis bañ koo yëg te jàpp ne moo gën a suufe nit ñi xam-xam jàpp ndax foo mën a toll ci xam-xam ak nit ñi luñ la mën a naw naw naw ci xam-xam teewut yow xamal nga sa bopp ay domaines yoo xam ne xam nga ne buñ ci duggoon ak yow doo ci xam dara yow xam nga ko ndax ku dajale xam-xam yëpp amut fenn kon moo tax wormaal jaami suñ borom yi ak suturaal leen lenn lu toll ni moom amut kon xam naa dañuy taxaw foofu ba ëllëg ak jàmm ñu doog a yeggale ñëw ci bunt bi nga xam ne ci lay sëriñ bi di wax nag ci teggini sàkku xam-xam ak niñ ko war a jaare wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu